asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar net dañu kontaan ci topp bi ngeen ñuy topp tey ñi ngi fi nga xamante ni moom mooy yëmbal nekk ci yoonu Mané ba li ñu fi indi mooy xale bi nga xamante ni mi ngi tudd Baye Cheikh toll si 17 ans génn àddina ginnaaw bal bi nga xamante ni moom moo ko dal ci bopp Baye Cheikh Diop ginnaaw bi ñu ko euh, dóoree bal fii ci manifestation yi doon am fii ay bés la passé alors fi ma taxaw nii nag fi la mbir mu doy waar bi amee ci ginnaaw yéen a ngi gis euh, atelier mécanicien bi nga xamante ni moom la fa lay liggéey ndax moom mécanicien la dafa liggéey ba wàcc ci li ñu wax dafa taxaw fii ma taxaw nii di téye mburóom fas yéene xaar ndogu ndax jour boobu dafa wooroon ci la bal bi dalee si koom ñu bari nag am na ay version yu baree bari waaye ñun duñ ci sori dañuy bàyyi ñi nga xamante ni ñoo fekkee mbir mi ñoom ñu daal di waxal seen bopp mbir mi naka la demee. Pape ñu ngi lay nuyu. ñoo leen di delloo nuyu yéen ñëpp di nuyu mbokku internet yi. ñu nga ñu mën a waxee ci mbir mi naka la demee exact waaw euh, euh, fii euh, d'après témoignage yi am ak yenn vidéo yoo xam ne sax mun na leen ko jox sax dangay gis ne fii ba fi oto bi di ñëw maanaam ay booy ñoom ñoo yëngaloon ñëw ba si maire bi mooy fu leen woon sànq noonu fi ngeen demoon noonu ñëw ba si maire bi noonu taal fi seen benn pono daa leen kese orange money ba police ñëwee rétablir ko maanaam xeexu xeexu Hibou Fata wala xeex gladiateur wala xeex bu mu munti doon xeex bu amuloon fii quoi mais après ñoom si lan si lan fay foofu retourné xam ne waaw police police yëmbal euh, noor bi quoi euh, xam ne xeex du amee police du wàccee sax da ngay xam ne ne police du wàccee moom du tal fay li muy njëkk def mooy rétablir l'ordre ba pare mais da nga ñëw booy seey dem léegi après ñoom ban na ñëwee ba nii nii maanaam ñoom si ñun si leen dégg ay ay ay ay ay bal quoi waaw bal euh, ay bal nag si la booy bi deewee tamit ñoom ñoom nag presse bi lu mel ni TFM da ko gars yi di waxee ñoom ñoo ngi naan Euh, xeeroo ko xeeroo rey mais booy bi lu tax marto mënu koo rey lu tax booy bi feles mënu koo rey wala pavé wala leneen maam nit doo xamul wala xamoo baatu armement yi da ngay dem laajte ba pare quoi ñun lu ñu jàpp may euh, arme moo ko rey arme boobu la ñuy jàpp quoi euh, mais fii lii tax nii tiire bal wala dara amu fi woon quoi doo doo laajte doo laajte woon sax waa mbedd mi ñoom ñëpp neen la ko wax quoi mais ay tiira bal moom jëm na fi nag quoi ndax man imaam ratib bu yëmbal sax wax na ma ko ma wooyee nee ma toll naa station yëmbal dégg bal te bal yooyu tam moo waraloon tamit ñoom boobu moo tax ñu taal ko bal bu ñu dégg tamit moo waaw moo tax taal station bi ndax euh, ndax yëpp xoolal fii amul benn magasin bu fi gars yi toj doo xoolee amul benn magasin bu ñu fa toj wala station wala. woon di di dóor ay ay ay bal. waaw non waa si yoon waa si yoon ndax ñaari bal bali génn. ga euh, ñun ñëpp ñu dégg ko tam si vidéo da ngay gis ne ñaari bal yooyu yëpp si bi la soqee koo dem quoi waaw ñaari ñoom nag ñoom nag euh, ñoom maam tey nekkoon chef de police jàppale man man mission bu mu munti def ndax gis nañu ko ay Irak ak yooyu mission bu ñu la munti yebal yow da ngay défendre say soldats Euh, mais enquête nekkul police moo koy def enquête bi si loxo gendarmerie lay ne moo xam naa jàpp ne ñun waa yëmbal loo xam ne gën a leer ñu leeral askan gi leen di manipuler wala presse corrompu loon yor ñoom si boobaa tam ñu xam ne ne ñoom si ñun askan bi ñun ñoo ñu jàpp ne ñun danoo juum si boobaa ñun ñu juum ñu xam ne ne ñun leen jàpp na ne ndeke xeer du la ko dóoree da ngay dee si benn si saa si ngay dee ñun si boobaa tam nu may police jàmm mais pour l'instant moom lu gars yi ñëpp jàpp waa jàpp ñi ñi fi jaay ñëpp jàpp ko mooy bal bal jub na fi waaw te bal bal tam moo xam ne loolu leen jàpp euh, ñoom nag ñoo xam quoi papay xale bi nag moom ñun neen ko comprendre dafa nekk si dëj nag du nekkee si dëj nit di waxee fee yow doo nekk foofu di leen tontu quoi yow lijjanti sa dëj ba pare quoi doo lijjanti sa dëj ba dëkk bi yoon am na fi nu xool yoon quoi moom loolu ñun yëmbal ñëpp ndax tamit euh, moom moom doom ji doomam la Euh, lu nu sëkk moom mooy ay dëkkandoo lan euh, wala lu nu naqare la ndax moom démb doo leen ko laajee sax am na xale boo xam dafa jóge Maliko jigéen jóge foofu ñëw ba wër ba sonn si leen ko tegtalee kër gi mu ñëw fa jooy fa jooy méttee métti na moom si internet bi la ko gisee euh, kon kooku noonu loolu muy def mooy justice la ñuy réclamer maanaam xale bi ak kooku munti rey wala ko munti sande xeer maanaam kon nu gars yi def ba filmer auto police bi kon war nañ tamit am koo ne kon taxawoon na fii si di filmer ñu ne kii moo doon sànni xeer kooku nu woolu ko entendre ko wala dara du nekkee moom xeer bu mu sànni noo xam ne fii xeer am quoi waaw non autopsie bi moom papa yi non génn moo ngi si papa yi xale bi yor na ko waaw euh, euh, euh, sous préfet yor na ko quoi waaw mais papa yi xale mooy li moom li muy wax chaque jour man maa ngi koy moom mi koy wax si lamine boppam moom comme que moom nag moom moom nag doo ko neexee peut être dëj la ne moom li muy wax man ma dégg ko mooy luy waa yëmbal ñëpp jàpp na loolu moo am waaw mais nag du beneen ñoom duñu waxee beneen version loolu ñoom la engagé ko waaw ñu ngi fii euh, yëmbal ñu ngi ni toog ak euh, soxna Diop di tante si Baye Cheikh te moom moo ko yor sax si loxoom la nekkoon ñu ngi lay nuyu soxna si. maa leen di fay. waaw bu la jaalee bokk yow tiis bi mbir mi nan nga koy dundee. mbir mi de métti la ko laa ko dundee ginnaaw ma sant yàlla julli ci bi sant sama ñaari waajur mbir mi moom métti rek laa ko dundee. na xale bi ba mu amee ñeenti at la ko yaayam yëkkati jox ma fa ma dem këram yaayam boole ko gi yéreem ni ma soxla joom mën a ah, am ne dama may bàyyi seex na ma jëlee ay yéreem ma jël ay yéreem indi ko fii yar ko nekk fi nekk nu rafet ak moom musuma xam ci lenn caaxaan bi ma leen gis ba zone yi man affaire Sonko yi sax yëguma ko mercredi laa dem yëmbal sama kër yaay rek dégg xale yi di ko wax foofu laa ko yëgee waaye man yëguma ko zone mu xëy na ma dafa woor may fobee rek mu nekk ak man gis 5 ma du fii di wax ak man ba keroog may pare ba 8 heures mu daal ne ma maa ngi xëy sol daal lu magam génn magam dàq ko ci biti mu nangu daal yi ñoo mën ko yow bàyyi seex ni nga ñàkkee jom da ngaa war a daal da nga am sa di ko dénkaan doo jënd daal gënal daal mu daal damay lëng ne ma yow maîtrise yow yaa ma yoole yaa tax papa yéeg ne maa sol daalam lëng ma ci biir néeg ma dugg rek su ma daal rek mu daal di koy sol daal daw génn ba ci ponteer bi ne ma maîtrise an daal ma ne ko mu fii ma xool gisuma ko ma ne ko dangaa ñàkk jom jëraloo ma daw ma bàyyi ko mu dem nee ba ay 5 heures jàpp 6 heures mooy yooyu sama doom bi jàng ci école bi si tali bi daal di ñëw ne ma yaay nañ ñoo dàq ma ne ko tax ñu dàq tali bi nee nañ daam benn xale bu ñu fi rey ba tax sama xel ñaaw si ñoom ndax man joxuñu ci daray caaxaan léegi ma ne ko ah ma ne wax ma ko léegi kon toogal mu daal toog ba toog ba mu am diir seen papa wàcc daal di fekk fi ma tëdd mu ne ma nii yow tey di nga am xaalis ma ne ko laa war a jëlee xaalis mu ne ma sa doom de fekk daa fi wàcc moteur oto ma ne ko ndax yàlla su ñëwee may 1000 francs ma jënd daal ma bàyyi foog daal yooyu comme que nanguut a jënd daal ci laa génn taxaw ci bu mbeddu koñ bi di wax ak sama benn dëkkandoo rek xale yi fekk mu daal di may songu daal ma tànn xanaa yëgoo la xew ma ne lan moo xew mu ne ma dóor nañu bàyyi seex bal mu ne bal fu ma taxawoon di insisté rek ba xam di génn ci kër daal di may romb di daw daal na ma yaa ngi wax de waaye rey nañ sa doom nii na ma laa am si bàyyi seex Tijaan Jóob ma wax wax dama dem tale pour seet ko ñu ne ma yow mënoo dem toogal ma toog fii mu naqari ma lool tiis ma lool am naa ci lu ma naqari Baye Cheikh Diop keroog bu ñu ko boomee laa am ci moom lu mu naqari mosuma am ci moom lu ma naqari ñoom ñëpp nag dañoo baax ma nga mi nekk kër gi ma yor ñoo ma seen lépp ñoo ko yor lépp lu ma bëgg ñoo koy defal bala ñoo xëy dañ ñama tànta Diop suñu wàccee bala ñoo def leen dañ ñama tànta Diop bu ñu boomee Baye Cheikh daal laa am ci moom lu ma naqari am naa ci lu ma naqari torop torop torop su ma soxee yaayam dama koy woo ne ko kaay jël sa wàll si njàggi waaye du ma ko woowee lii dëkkandoo sax dañoo wax ba sonn wool yaayam woo yaayam ma ne ko xalaatuma woo yaayam di ko tàggee man Cheikh Tidiane Diop ci la sama gorob doo jël téléphone bi composé doog ko jox ma tàgg ko yaayam maam lu ma naqari lool nag ak sama famille ñi ma xam ñëpp am na lu leen naqari ci dama Cheikh Tidiane Diop gi yàlla na xippee ji àjjana eh, autorité yi dëkk fii maire beeg yooyu ndax ñëw nañ fii jàll si leen waaw ñëw nañ fii Daawdu Njaay ñëw na fi Baara Gaye ñëw na fi Samba ñaay député bi itam ñëw na fi waaw ak yéen mouvement yi ne ci koñ bi fii yëpp ñëw nañ fi taxawaay bi rafe na lool ci dëkkandoo yi dëkkandoo yi moom ñëpp taxawaay bi rafet na lool ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp leen lañu naqare rek ma dem ak Baye Cheikh Tidiane Diop waaye Baye Cheikh gannaawam lépp a baax lépp lan ngay xaar ci ci wàllu yoon yoon def ko ndax comme euh, ci li ñu dégg mooy moom bokkul woon ci marché bi dafa wàcc rek di ñibbi donc yoonam nekk si woon même bu ci nekkee sax waruñu ko boom donc yow lan ngay xaar ci euh, état wu Sénégal rawatina ñi nga xamante ni ñoo def mbir boobu lan ngay xaar yoon def si ñu wàccul di ñibbi sax gaaraasam la taxaw jënd mburóom def si saagam odo taxaw si seen garage nangam na ko bàyyil ba oto bi jàll nga doog a dem mu croisé la bara ñu ko dëppar ñi dañ ko fekk mu odoo saagam saag bi ci lañ génnee mburu mi ba niñ ko fa yëkkatee loxo bi ni mu ko defoon nii dindiwu ko noonu la ko def bokku ci manifeste magam yi bokku ñoom xamuñu leen ñoom mooy liggéey ñëw 23 heures bu su leen fekk ci mbedd mi 10 heures sax du leen ci mbedd mi ñëw nañ toog seen néeg jabar mag yee bu seen heure tëdd jot ku nekk dugg néegam moom nag moom su ñëwee sama néeg lay nekk lu nekk dina ma ko wax man la def morom yenn saa yi mu tëdd yenn saa ma xool fii ko suuf mu tëdd autorité yi nag comme que bàyyam liggéey ci yoon yaayam liggéey man mi yaayam yor ko liggéey ma ci yoon bàyyi nañ ko seen loxo daal ñun daal suñu bopp yàlla lañ ko wékk luñ ci man def nañ ko ci def waaye ñun moom suñu bopp yàlla lañ ci wékk moom ñu ngi fi euh, toog ak Modou Diop di papa si euh, Baye Cheikh Modou ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di jaare lu ndigaal li ñu bokk sigi sawaala nga ñu mën a wax si mbir mi Baye Cheikh la sama doom la maa ko yar sama doom la maaka ko yar naak naa ko alxuraan dugal naa ko école dernièrement nag euh, mécanicien la mu jëwoon waaw te mécanicien mi de woon na ma ci ba am ci yaakaar waaye nag nit yàlla moo nu moom yàlla moo ma bàyyi seex ndax si nga doomu aadama bu ne yàlla dana kula nasin xaay saayaqatul mawti bakkan mos dund da nga mos dee ku la xalaan faanu lépp lu lépp lu tooy lu ne da nga wow kon Baye Cheikh man mu mukk yàllaa ma ko joxoon moo ko soxla alalu jaamur nag boo ko gënee bëgg borom danga am lu ca nar am na lu ma ca naroon ndax la ma ca naroon mooy jariñoo ko mu yor ma ba ba ma suul ma waaye comme yàlla dafa defe na moo neex yàlla maa ngi koy gërëme yàlla alhamdulilahi rabil alamina alhamdulilahi rabil alamina comme sama doom ji sàccul fenul daa liggéey ba daanu gàcce ngaalama jóoba jóoba jërëjëf